OFNAC dañ ko samp dañ koy samp président de la république donne kañ OFNAC xam nga du moom rek mo fi nek ci kuréel buy saytu lepp lu jëm ci walu àll bari na fi Mom bañ ko falee 2012 dafa samp OFNAC demoon na fi sax ci benn ndaje mu ne OFNAC bii pour ñun la Manam ñun suñu gestion Bam ko défé ñu tok OFNAC tambali liggéey génn rapport ciow lu bari am ci mu rapor jot na rapport beek jotul rapport bi ci bir livre bi bo len ko liiree wane ne ne rapport bi mom jotone na ci kon mi ngi ci bir livre bi mun ko liiree ba pare ci bir rapport d'activité nak bobu nak dafa amone ñaari rapport yu ci di ko ñun journaliste rapport poste ak rapport coude rapport coude nak mo gënon jur ciow ndax demoon nañ ci ba ki nga xam ne moo yoroon kuddu ñu ko ci tuumal mu ne dina porter plainte Nafi Ngom Keïta gis ñu plainte bi ba tey coow li bari ci ñun journalistes yi ñu interpellé procureur du benn du ñaari yoon ci rapport kuddu boobule ci Khalifa Sall bañ koy njëkk a tëj ba muy def conférence la ne foofu fromage la turu moo fu ëpp fromage sax mu ñëwaat ci Petro-Tim waxaat ci rapport bi ne rapport bi amul rapport contradictoire wareef la si ñun journaliste nag foog naa ñu lijjanti ba xool rapport boobu ba jot ko buñ ko jotee càmbar ko génne ko lépp lu ko ci téere bi ci rapport boobu la bàyyeekoo comme ci rapport boobu la bàyyeekoo nag dañ koy jox sénégalais yi ku liir xam lu nekk ci biir rapport boobu bu jaree nga ne Cheikh Omar Anne def na nga ne ah def na bu ko jarul nga ne ah Cheikh Omar Anne deful loolu rek mooy sababu téere tama yoon newul ci plainte Cheikh Oumar Anne tama yoon newu ci Pape Alé Niang journaliste opposant xam nga ku koy wax ku falu tey Macky Sall ba mu nekkee di wut maa moom ñoo doon nekk matin midi soir mu falu ñooy journaliste xam nga lan la man damaa gëmul ñuy wax ne wéy journaliste doom engagement journaliste doom gëwma loolu lu jaaduwul non neutralité mooy lan neutralité ak saytaane lay indi des fois xam nga nga gis ku ñuy dóor fii jaaduwul ah nga ne lii jaadul wante dama ciy neutre di seetaan loolu jaaduwul lu jaaduwul dañ koy wax parce que on est des citoyens sénégalais on est des citoyens sénégalais est-ce que jaadu na nit di sàcc xaalis nga ne ah jaaduwul da waaye man journaliste la damay neutre damay laajte rek xam nga loolu man ku nekk ni nga gëm le journalisme d'investigation wax naa leen ko fii ba may liir sama discours na man wax fëgguma dënd na journaliste d'investigation laa déedéet dama ne man li ma mën a càmbar ba gis ko ba leeral ko askan wi ñu man cee jot ma dinaa ko def journaliste opposant nag Macky Sall ba ma koy jël 31 décembre 2011 muy toog sama plateau néewoon na yéen journaliste yi ko fi dañ jël waaw fekkeewu leen ko muy benn ñaar na ba muy daw ci àll bi di di tourner ay vidéo télé yi duñ ko teg ñu ma koy indil ma di ko teg néewoon na ñu ko doon wax parce que boobu dafa jàppoon ne ñëpp am droit à la parole bu nekkee ci démocratie la ñu nekk voilà léegi nag leneen li ciy wax nag xaritu diw laa xarit diw la ku ma neex ma xaritoo